mais yi xool leen tey fi ma génn ci balan fi ma génn ci balan def balan bu dëgg ndeyam war a katt ji nii ñëwaat ah jël leen dàll yi cuus yi jël leen cuus yi balan balan bu dëgg ndeyam laa def balan bu katt ndeyam te xam nga takk montre duma ko fàtte biling biling yi montre yi arsan lay def nii versace waaw bos day néegi